de 40 quotidiens Sénégal dañ ci rek jël euh, kepp dañ koy dooree nak les échos mom les échos dafa ñëw ci le président Diomaye Faye ne ko fan la ci toll ndax mom dafa décision dafa jëloon engagement ko ci civil, ne rappeler euh, ses engagements dans di koy nag euh, président

voilà kon euh, euh, mën nañ mën nañ seetu euh, xale jigéen bëgg a def fulaar dem jàngi lolu dorat Sénégal ndaxte débat bi ci yu weesu taroon na lool l'interdiction du voile dans les établissements scolaires wax na nous avons besoin de plus le peuple pour renégocier toutes ces conventions conventions yi nee na également danañ ko xoolaat Ousmane Sonko moo yëkkati kàddu yu ni mel ci bi muy daral euh, lauréat yi maanaam xale yu ndaw yi wala euh, ndongo yi gën a xarañ ci sunu euh, éducation ñu leen di jaajëfal également di leen rendre hommage libération la ñuy tàbbi soxna Buri moom dafa ñëw ci mbiru Kafountine la ak la fa xewoon ndaw soo suñu faatoon ci kanamu njabootam enquête bi nag am na lu mu wone muy ay secret yoo xamante ne ni enquête bi wone na ko Hmm. Euh, cerné par la section de recherche de Ziguinchor, Daouda Diallo a commencé à servir en janvier 2024. Toutes ces présumées victimes, euh, trouvées en plein sommeil, ont reçu des coups de bâton sur la tête. Euh, Alors, le mis en cause a cerné, a semé la terreur pour voler des portables qu'il revendait à des prostituées aucune, aucune victime n'a subi euh, des sévices sexuels amul ken ko xamanteni ci victime yi euh, amna ci ay sévices sexuels manam viol la wala yu demee non. waaye dana la faat jël sa téléphone jaay ko jaay ko ay ay prostituées euh, lolu mi ngi ci enquête bi lolu révélé parce que waa japp nañ ko fan yi ñu génn fële ca Kafountine muy lu yéeme Ahmed Suzanne Camara mom dem na prison ki def lu ni mel mom moy juge Euh, gu dem gu njëkk ca Ndungu Sine gannaaw bam mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci président Diomaye Le Soleil yéene kaay ñëw ci euh, saakar bi nga xamante ne nii ñu ngi ko doon man fële ca grand euh, grand théâtre oui avec la fête de l' excellence xale yu xale yu ndaw élèves yi gën a xarañ ci njàng meñ kenn ku dul Mamadou Sangaré nek scientifique bu mak nekkoon de l'enseignement supérieur mom lañ bayalé won xew bi euh, ngir xërtal xalé yi ci walum science ndax Mamadou Sangaré ko ko xam scientifique bu mag a la fi ci Sénégal alors observateur mom euh, ñew ba tay ci walum salaire yi nga xamante ni ñu koy némé ko ci directeur yi ak euh, ministres yi voilà enquête sur les salaires de nos dirigeants révélation traitement les avantages des membres du gouvernement les ministre les présidents d'institutions les institutions, les députés ba les directeurs généraux écoutez-nous, salaire ñaata la toll enquête bu observateur def ah, euh, li ñu nemee ko nag directeurs d'agence yoo xamante ne ñoo salaire ay ministre Sénégal loolu am ah, salaire ça tourne autour de 2 millions 5 millions euh, entre ministres, directeurs d'agence et directeur général direction générale euh, L'Observateur observateur def na ci ab njangat bu hmm, son passé de joueur euh, de handball sa passion pour le métier d'avocat et les défis donc euh, Alifal, Fall mom moy bâtonnier bi bu bes bi nga nañ ko observateur nag ñëwaat na ci passé am am nak passion ci walu handball ak métier avocat mu mi page bu bu observateur alors le quotidien nous euh, euh, ñëw ci l'économie euh, économie ak xam nga fan Sénégal defoon un ay levée de fonds ci marché eurobond eh bien def na levée de fonds bi la yon ci marché de l'UEMOA le Sénégal ne se cache plus 66 milliards de francs CFA levés lundi dernier ci marché wu UEMOA kon euh, bor bor la boo xamanteni Sénégal amat nako ci ci marché bi euh, alors euh, ñu nañ nak ci également ci lettre bobu nga xamanteni société civile def nañ ko jëmele ko ci Bassirou Diakhar Fay ngir nak mu wax leen fan la toll ci pacte de gouvernance bi assise nationale wi génne won ci atu 2008 comme nous ngi euh, résultat du concours général l'excellence prend des ailes ci Euh, téeméer ak fukk ak ñaar lauréats yi euh, li ci ëpp ay jigéen lañu donc euh, loolu moo génn également ci chiffres yi moo tax gàcce ngaalaama aussi xale yu jigéen ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñu ngi damee pas aux hommes alors ci wàllum tàggat yaram la ñuy jeexale soxna buri donc West Ham s'attaque à Boulaye Dia donc mi ngi noonu kon loolu la moy euh, titre am tay Boulaye Dia international sénégalais un attaquant équipe nationale euh, mom ak West Ham moom moo moo attaqué wu alors ci walum euh, fële ca jouer également Maroc ak Égypte en quart de finale c'est des équipes africaines yo xamante ñu ngi en liste fële les Jeux olympiques de Paris États-Unis Soudan hmm, donc basket victoire loolu affiche la boo xamante dina am tey ci diggante euh, Amérique ak euh, Soudan du Sud tey lay am fële ca euh, Paris ci wàllum làmb également Modou Lo Tapha de Guiers 2 Balla Eumeu donc ngi noonu Balla Gaye 2 B52 Gris Gouye Gui ñii nag ay mbër la yoo xamante ne nii dañu leen relégué gis nañu ay affiches Modou Tapha Tine Lac de Guiers 2 Balla ak euh, kii di Eumeu kon mi ngi noonu euh, ay affiche ay combat la yo xam ay teno la yo xamante ne euh, journal bi ñëw na ci ñom ak sen saison li ci xaw yépp mm. mi ngi ci xet wu njëkk bu sunu lamb ñu fàttali ne sunu lamb légui mook stade benn journal la nekatul ñaari journal. d'accord jërëjëf Codé merci beaucoup voilà lolu moy li nga xamanteni mo gëna fess ci bop